nuyu ci nek ci turam ak santam di ci bi président du conseil national conseil national de de régulation de l'audiovisuel ak euh, équipe bi mu andal di ci euh, président convention nationale des jeunes reporters du Sénégal

élection nag nekk euh, jamono joo xamante ne nii day indi jama faral di indi yëngu-yëngu yu bari ci dëkk bi te euh, média yi nga xamante ne moom ngeen doon am ci euh, taxawaay bu war ci am taxawaay bu am am solo ndax duma tàyyi di ko fàttali liberté média dafa nekk luy dundal démocratie élection itam nekk moment fort ci démocratie donc lan moo war a nekk seen taxawaay ci jamono yooyu bi ci dëkk

nit kii war a gañe gañe ña war a dem dem ña toog toog xam ne nangu ko te loolu yéen dangeen ngeen cee war a am taxawaay bu ama am solo looloo waral tey euh, teewaayu CNRA fii ñuy rafetlu bu baax également déplacement bi nga xamante ne jóge nañu Ndakaaru ñëw ba fii ci Ndar rencontrer les acteurs du Nord muy waa Ndar waa Louga ak waa maatam ngir waxtaan ak ñoom si euh, obligation légale yi nga xamante ne am nañ ko war ko doxalee ci wàllu rawatina si wàllu élection am na également un brévière du reporter bi nga xamante ni indaale nañu ko mu nekk mu tënk euh, comportement bi nga xamante ni jikko yi nga xamante ne nii journaliste bu baax a baax war na ko am li ma fi wax nii yëpp nag lu jafe la lu jafe la ndax dañu nekk ci jamono bu doy doy waar euh, monde bi évolué na daanaka évolution bu gaaw bu rapide li ñuy wax réseaux sociaux yi léegi bari euh, ku ne am nga droit à la parole ku ne jox nga sa bopp droit pour informer donte formé ñu la pour loolu te journalisme du rek jël sa micro yor sa caméra doxantu di wuyu déedéet yéen a ma ko gën a xam waaye leer na leen ni que seen biir am na ñoo xamante ne nii ñi ngi def lépp loo xam ne wàccoo na ak yoonu journaliste te li ko waral benn doyen wax na ko léegi manque de formation mi ngi ci topp dërëm mi ngi ci par parloo mi ngi ci mais dama ni métier journalisme métier noble la waaye nag ñi koy delloo lettre de noblesse ba yéen ñii la kenn waru leen ci jiitu CNRA mi ngi def liggéey li mu mën ngir jàppale leen mais kenn waru leen ci jiitu tey nag xarab yi bari na lool lool lool donc yéen war a am doxalin woo xamante ne nii di fexe loolu mu dakk li nga xamante ne nii nag mooy bërëb bi galeuse am na fépp mi ngi fépp waaye jàpp naa ni yéen am ngeen doxalin bi ngeen di am daa ngeen mën a yóbbaale le maximum ñu tegu ci yoonu bax bi donc may rafetluwaat encore une fois euh, teewaay bi nga xam ne waa CNRA teew fi di sàkku si yéen ngeen ànd ak dégg ak déglu bu ñu jógee fii li nga xamante ne nii fàttali nañ leen ko wax na leen ko ngeen doxee noonu ngir gën contribuer seen rôle ci wàllum jàmm si wàllum démocratie ci Sénégal damay daanelee rek monsieur le président ndax yéen a ngi fi te ngeen nekk autorité morale toute la presse di euh, jaajëfal bu baax waa presse local bu Saint-Louis wax dëgg yàlla maa ngi rafetlu bu baax seen professionnalisme waaye duma leen raay rek dans le sens du poil parce que ñoom ci seen biir rax nañu leen rax nañu leen façon bu nekk ngay gis mu jóg ñëw yor caméra ñëw loolu nag ñun ñun ñi nga xam ne ñuy autorités yi bu leen ci leen ci bëggee jàppale ñoom ñooy ñëpp ci seen bopp war a bañ a nangu ku leen fa jóox wala bu ñu gisee seeni morom boo xam ne niñ ci seen biir am comportement boo xamante ni jaarul yoon ñu dénoncé ko ñu wax ko ñu génnee ko ci seen biir lolu moy waral ndax ben pompier bi nak da yak saaku donc tok di naan moi je fais mon travail avec professionnalisme les autres defuñu loolu non ça c'est faire avec déchet te yaa ngi contribuer yak sa corporation donte yow doxee woon noonu donc mu nekkoon soññe yo xamante ne ñu ngi koy def di jaajëfal encore une fois toute l'assistance di len remercier di len également jottali nuyo gouverneur de la région de Saint-Louis jërë ngeen jëf